C'est ce qu'on dit chaque jour qu'on se lève, qu'on dort, il y a de nouveaux dossiers. képp nga wala da ngay mel ni ngay wax sama nopp yi dafa mel ni wala lu lu lu lu tuuti def ndax. quel le problème. ce problème mooy naka euh, kii dama doon def transfert de euh, Orange Money. Ah. mu am si keneen ku mu tudd. ah daa juum. bi dem na feneen. mooy ñëw de wax français sama sama place di wax wax français ba mu defee ne moom mun na jàngal sax. ministère yi. c'est que li ma gën a neex ci Taf mooy dafa ñeme jënd yére yu cher jaay intellectuel te bu ma la waxee ni la euh, c'était c'est lui qui qui qui euh, euh, sécurité école Boli Diaw c'est une école primaire qui se trouve par là de chez bien sûr gardien la fa woon. il était là man bi ma gisee non muy gàddu cartable am di fi dugub. amoon ak peut-être ay affaire kayit lay toppatoo du genre comme ça bëgg voyager du genre ndeke xale yi la doon jàngal da doon salfaaña seen seen seen